أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والغوث الأشهر الخطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم من التيجان رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاه من فيض معارفه أعظم الأواني بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene dellu si ak yéen ci seen bind xamsa tariqa ñoo ngi waxtaane woon bind bi weesu suruutu kamalil wirdi charte yi nga xam ni moom mooy tax wird bi mat maanaam soo ko bàyyee wird bi du yàqu waaye soo ko defan mu gën a mat li ñu fas yéene waxtaane tey jii mooy li nga xam ni dañ koo sip ci werd bi ak yi nga xam ni dara nekku ci nga def ko maanaam dagan na nga def ko ci biir werd bi maa yukrahu wa maa yamtaniu wa maa yajuuzu fil wirdi li ñu sip ci def ko li ñu sip ku ko def ci werd bi ak li nga xam ni dañoo tere ku ko def ci werd bi donte boo ko defee du ko du yàq werd bi waaye dañ ko tere ak li nga xam ni dafa dagan nga def ko ci biir werd bi kon li ñuy njëkkee mooy mbir yi nga xam ni dañoo sib ku ko def ci werd bi yoo xam ni ku ko def ci werd bi dina wér waaye dañ koo sib bëgguñu nga def ko yooyu dañ ciy tudd rek juróomi mbir bi ci njëkk mooy jàng werd bi di ko biral laazim laazim soo koy jàng dañoo bëgg rekk nga jàng ko ci suuf bañ koo wax ca kaw kon soo koy jàng danga koy wax ci suuf ndax loolu mooy nëbb mbóotu werd bi loolu mooy bu jiitu bi bu ñaareel bi mooy di jàng werd bi di muuñ muuñ yu bari maanaam am na ñoo xamante ni seen reetaan muuñ la kon muuñ yu bari yooyu dañoo sib ku ko def ci biir werd bi muuñ moo nekkoon reetaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul xàqtaay daana muuñ nag ba ay bëñam yépp génn kon loolu tamit sib nañ ku ko def ci werd bi ndax dafay teye nit ki concentré wu dafay xañ nit ki concentration bi nga xamante ni war na ko war na ko def ci biir werd bi mawlaaya sultaan dafa ne wala tajhar bihi wa laazim bihi alxafa fa kitmaanuhu min ashuruti almuhimma wa firra min al aswaati inda tilaawa wa min kulli mulhin yaa muaddiba sibyatin mu ni bul biral werd bi mukk na nga taqoo tamit di ko nëbb maanaam di ko jàng ci suuf fa kitmaanuhu min min shuruuti al muhimma mu ni di jàng werd bi di ko yàllu di ko jàng ci suuf bokk na ci chart yi nga xamante ni yu am importance la ci werd bi wa qiraatu wa firra min al aswaati inda tilaawa nga daw tamit lépp loo xamante ni ay bruit la ak yooyu ak lépp loo xamante ni daf lay soxal wa min kulli mulhin yaa muaddiba sibyatin ak lépp loo xamante ni mën na laa soxal ci sa biir werd ba sa xel di ci génn mu ni na nga ko na nga ko téet na nga ko moytandiku kon di ko jàng ci kaw ak yooyu yëpp ay bruit lay doon ay aswaat lay doon ay son lay doon kon booy koy jàng dañu bëgg nga ni tekk teewlu wax na ne nag ñi nga xamante ni seen tekk boobu mën leen a may teewlu nañuy jàng loo xamante ni ñoom seen bopp ñu ngi koy déglu maanaam ñi ngi jàng loo xam ne ñu ngi déglu seen bopp kon nañu biral ndànk mais bu mu bu mu kawe nañu biral biral boo xamante ni ñoom rek ñoo koy ñoo koy dégg bu ñetteel ba mooy di jàng werd bi di gestu jamono bi ngay jàng werd bi dañoo bëgg nga toog jublu penku loolu lañ bëgg waaye bul nekk di geestu ci lu dul darura lu dul ni lor dafa am da nga gis da nga dégg lu yëngu da nga gis kuy ñëw da nga am ko war a orienté yooyu yooyu moom may nañ la ko ci biir werd bi bu ñeenteel bi mooy bul bàyyi sa xel muy xalaat lu ko neex na nga tënk sa xel ci xalaat yi loolu tamit lu jara bàyyi xel la am na ñoo xamante ni suñuy wérd rek dañuy fecc seen xel lu ñu bëggoon a xalaat bala buñ buñ koy xalaat dañuy bàyyi bay wérd lu ñu bëggoon a def dañuy ko bàyyi bay am na ñoo xam bu ñuy wérd sax ci la ñuy calculer seeni marchandise dañuy nettali dafa am commerçant boo xamante ni daf doon calcul ba di weranteeg beneen moroomu commerçant ñu taxaw di julli bi ñuy julli bi mu ne asalaamaaleykum rek la ko li ñu waxoon nangam la ni ko temps la bi may julli laa ko calculer kon xam nga kooku xelam mi yépp ci loolu la nekkoon moo tax dañu bëgg sooy werd bul tinki sa xel mi ak sa xol bi muy dem di wari lu nekk loolu nag bari na ñoo xamante ni bala ñoo mën a xalaat ci yu bari rek dañoo sukk di werd bu boobaa da ngaa war a jubale sa xol ak sa xel lépp ci suñu borom waaw bàyyi xalaat yi àdduna yépp bu juróomeel ba mooy nelaw yu woyof dañ koo sib ci werd bi nelaw yu woyof dañ koo sib ci werd bi kon nag yu woyof lañu wax bu diisee moom werd bi day yàqu ndax njàpp la moom moo dul wérati te jàpp bi sartu sixa la su fi nekkatul werd bi nekkatu fi kon nit ki su dee werd su njàpp li yàqoo werd ba yàqu na te bu fekkee ne dafa nelaw nelaw yu xóot njàpp la toj na werd ba tamit dafa yàquwaale kon juróomeel bi mooy nelaw yu woyof jayaxu ak commencé gëmmentu loolu dañ koo sib ci nit ki buy jàng werde bi waaye su fekkente ni kay da daa nelaw nelaw yu xóot mbay waaj a xaran bu boobaa werde ba dafay daal di yàqu kon an nawmul xafiif la ñu wax kon nit ki suy werd li gën mooy bu mu werd mukk lu dul ni dafa yewu yewu gu mat sëkk waaw di xoole yewu gu mat sëkk kon juróom yooyu mooy yi nga xamante ni dañ koo sib ku ko def ci biir werd bi xëy na nag mën na am yeneen yoo xamante ni sib nañ ko waaye yii moom yu ci ràññeeku la juróom yoo xamante ni dañu sib kuy werd mu di ko def yi nga xam ne nag dañ koo tere dañoo tere nit ki di ko def maanaam buñ ko doon jox àtte dañ naan dafa xaraam dafa xaraam nit ki di ko def ci biir werd bi donte mën naa bañ a yàq werd bi comme rek kiy julli sàcc ci biir julli gi xam nga kiy julli sàcc ci biir julli gi def na lu xaraam ci biir julli gi waaye julleem du yàqu comme tamit maamum bi nga xamante ni dafay julli di njëkk a sujjóot imaamam wala muy sujjóotandoog moom bopp bu boobaa loolu dafa xaraam dafa xaraam waaye du yàq julleem kon imaam boo àndeek moom da ngay bàyyi bu imaam sujjóotee nga sujjóot bu rukkoo nga rukkoo am na ñaar nag yoo xam ne boo ko njëkkee def imaam sa julli baaxut mooy nga njëkk koo kàbbar kàbbaru armal wala njëkk nga njëkk koo sëlmal ñaar yi boo ci def sa julli baaxut kon werd bi am na ci yoo xamante ni dañ koo dañ koo dañ koo tere dafa xaraam dafa xaraam kiy werd di ko def donte nag du ko yàq ndax ay léeg-léeg nit ki def loo xamante ni xëy na lu araam la waaye mënta ñàkk ndax buñ ci njëkk a tudd mooy allah na mooy yàq di yàq baati di werd di yàq baati dafa xaraam kiy jàng li ñuy werde moo xam salaatul faatixi la moo xam jawharatul kamal lu mën a doon na ko jàng-jàng bu wér mokkal ko ci nu wér waaye bu mu yàq bu mu ko mokkal ci ak yàq dafa yàq baati werd bi ñaari xaaj la dafa am koo xamante ni dafay yàq grammaire werd bi comme ki naan allahuma salli ala sayidina muhammad ala sayiduna au lieu que mu ne ala sayidina mu ne ala sayiduna comme genre yooyu maanaam fi nga waroon a maas ci kaw nga maas ko ci suuf wala fi nga waroon a maas ci suuf nga maas ko ci kaw loolu dafa xaraam yàq ñaan ku ci yàq mën na koo xañ ñu nangu ko ñaan koo xamante ni bañ koy jàng dañ caa yàq mën na koo xañ ñu nangu ñaan googu moo tax Cheikh Sukayri dafa wax ne bu njëkkoon dañ daan wérlul suñu wérd ak suñuy ñaan ci boroom xam-xam yi ak muqaddam yi yow jàng nga wérd bi ba mu mokk commencé koo wérd demal ci koo xamante ni wóor na la ni kii mën na laa déglu nga wax nga jàng salaatul faatihi normal doo ko yàq nga jàng jawharatul kamal normal doo ko yàq xatta fatiha nga jàng ko doo ko yàq mu déglu la waaye ñu ci bëri boo tëjewoon ak néeg sax ci ñoom néeg ni leen jàngal salaatul fatihi ma déglu la mu ni la kii daf ma yab wala kii daf ma xeeb wala kii dafa nàngama nàngam loolu nag élève bi maanaam ki nga xamante ni moo bëgg xam moom moo koy defal boppam mu yomb mooy dem ci nit ñi ko dama bëgg a jàng jawharatul kamal nga dégg dama bëgg a jàng salaatul faatixi nga dégg lu ci wér mu wéralal la ko nga mokkal lu wér moo gën ngay mokkal lu wérut loolu mooy problème bi kon loolu lu am solo la boo demee ci sa sëriñ ak ki ngay jële werd sax li ci gënoon a jaadu mooy mu déglu la nga jàng jawharatul kamal mu déglu la nga jàng salaatul faatixi mbaxam wér na wala wér waaye rek bu njëkkoon ñi la daan jox wér di ñoo la daan jàngal salaatul faatiha jàngal la lépp ba nga ngay wax ñu di la déglu ba mu wér ñu bàyyi la nga dem léegi nag nit day jógee fu ne ñëw jël ci yàlla wér da doo xam mokkal na salaatul faatiha doo xam mokkalu ko doo xam am na xam na sart yi doo xam xamu ko yooyu yëpp détails yu bari doo xam du muqaddam bi joxe wér du ci xam dara loolu nag yàqu-yàqu la bu mag kon boobu mooy charte bu njëkk bi ci yàq lu ñu bañ la niki noonu tamit di gaaw jàng werd bi di ko jàng-njàng mu gaaw ba doo teewlu ba yàqaale baat yi boole ci loolu am na ñu koy def am na ñu koy def mbooloo am na ñu koy def tamit par kenn waaye ala kulli xaal wird bi dañu bëgg ku koy jàng nga teewlu ko teeyal ko jàng ko ci anam boo xamante ni doo ci yàq dara ndax mën naa nekk moo tax boroom jaamia wax ni wa manaul israa wal laxna kama qaxqahatan li qubxiha wa ammima wa shaddadu fi laxni qiila rubbama billaxni laa yaliju min baabi sama nee na ci tariqa bi dañoo bañ kuy jàng werd bi di gaaw gaaw gu ëpp waxuñu tamit nga yéex yéex bu ëpp loo gis rek diggu doom moo ca am solo kullu mahmadatin bayna razilatayni al ifraatu wa tafrit lépp bépp jikko boo gis ñu koy tagg ci ñaari kii la nekk ak njàmbaar mi ngi ci diggante asajaa wa tahawur al jubnu wa tahawur bopp tàppet baaxul waaye tahawur di di di di attaqué lu lay alak loolu du njàmbaar ak ta mooy la arab di wax ak tahawur ak dof-dof lu la njàmbaar nag kon man ki seen diggante bu bu avancé jotee nga avancé bu taxaw jotee nga taxaw kon niki noonu loo gis bu dee jàngum werd ak leneen am na lu gaaw lool am na lu yéex lool jëlal ba ne ci diggante ba booba baax niki noonu di jàng wérd bi di xaqtaay mu ni yooyu tamit dañ ko sib mu ni wa shaddadu nag fi laxni qiila rubbama bi laxni laa yaliju min baabi sama mu ni nag waaye daal boroom xam-xamu tariqa bi dañoo dañoo dañoo taral lool ci yàq di jàng wérd bi di ko yàq ñu ni sax mën naa am sax kiy jàng wérd bi di ko yàq du du li muy jàng du dem billax ni laa yaliju min baabi sama kon lu jara lu jara bàyyi xel la kon yàq ci ñaari anam yooyu laf ci da ciy amee bu njëkk bi mooy kiy jàng wérd bi masque yi fa mu ko war a teg du ko fa teg keneen ki mooy dafay jàng wérd bi di gaaw lool ba gaaw googu yóbbe ko muy yàq baati wala sax nag mu koy woy am na ñoo xam dañuy tarkiis ci woy wérd bi moo xam wérd la moo xam wasifa lu mu doon ci woy yooyu day tax ba ñuy damm ay masque bari na Sénégal téere yu ñuy jàng di ko woy woy gee tax ñuy damm masque yu bari ndax woykat yi ñu ci bari duñu bàyyi xel masque ak yooyu moo tax wérd bi boo koy jàng ak anam boo ko mën a jàngee même bu fekkee da nga koy woy mu dina la permettre nga teewlu bu mu ëpp bu mu tax bu mu bu woy gi tax mukk nag masque di damm wala nga yàq ni nga ko war a jànge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ni iyaakum wa saja wa saja fi duaa iyaakum wa saja fi duaa xasbu ahadikum an yaqula allahuma inni asaluka aljannata wama yuqarribu ilayha min qawlin wa camalin wa acuudu bika min annaari wama yuqarribu ilayha min qawlin wa camalin comme booy ñaan nga ñaan ko ci kaddu boo xamante ni bu naturel la bu naturel la bañ cee def takkallu bu njëkk di ko woy woy boo xamante ni da lay yóbbee ngay damm ay masque ay léeg-léeg ngay déglu woy woo xamante ni ki koy jàng su xaman li muy yàq maanaam dana arrêté sax nag la muy def kon yàq moom ci wérd bi lu jara moytu la lenn dong nag mooy tax nit ki mën cee mucc mooy mu dem ci koo xamante ni mën na koo wéralal li mu jàng parce que mbir moom boo ko jàngee da nga koy wérlul ñu wéralal la ko nga dog koo mokkal waaye boo mokkalee ay fët ay fët rek ngay tari kon loolu mooy xaaj bu njëkk bi xaaju ñaareel bi mooy di jàng wérd bi di woy ak yooyu tax nga di ko yàq beneen bi mooy gaaw ba mu ëpp gaaw ba mu ëpp day faral tax nit ñi di yàq ci wérd bi niki noonu di xàqtaay jàng wérd bi di ree ba xàqtaay mu ñu wax nañ la dañ koo sib mais xàqtaay dafa xaram ndax lu ñu ŋàññi la ci sharia ci lu dul sax nag ñaan yow da nga toll ci moment boo xamante ni da ngay ñaan moytul kay yi nga xamante ni dañ koo sib ci sharia xàqtaay nag lu ñu sib la ci sharia waxantuma la rawatina boo toogee nag di jàng sa wird yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan ree daf daan muuñ waaye daawul xàqtaay reetaanam yépp muuñ la woon waaye daawul xaqtaay kon yooyu mooy yi nga xamante ni dañ koo dañ koo araamal ci wérd bi dafa xaraam yooyu dafa wérd dafa xaraam ci wérd bi xaqtaay di jàng wérd bi di ko yàq jàng wérd bi di gaaw ba mu ëpp yooyu yépp dafa xaraam mu bëgg a ñëw nag ci yi nga xamante ni dagan na nit ki def ko ci biir wérd bi maanaam du ko yàq du yàq wérd bi dara nekku ci bu ci njëkk mooy lan junji junji nit ki nga nga bëgg a wax nit ki dara wàcce wàcce sa bopp wala nga yéegal sa bopp mu xam ne ci kaw la ne wala nga wàcce wala mu xam ne da ngay dëggal ko nit ñëwee ni la ma def nangam nga daal ni nii yëngal sa bopp mu xam ne da nga ni ko waaw wala mu xam ne da nga ni ko déet loolu dara nekku ci loolu dara nekku ci waaye nag bu mu bari bu mu bari dañoo sib mu bari bu mu bari bu ñaareel bi mooy lekk lu néew lekk tuuti loolu bañuñu ko ci wérd bi lu demee ni ki da nga gis fépp ñam boo xamante ni dafa ne ci suuf wala dafa ne ci kaw nàpp wala dara nga for ko seex loolu dara nekku ci du yàq sa wérd ndax loolu teggin la ak ñam wi waaye nag waxuñu kat ngay wérd di lekkub sandis wala déedéet yooyu loolu day yàq wérd loolu dafay yàq wérd bi mais su dee lekk bu tuuti wala lu nekk sa gémmiñ nga sàqami ko loolu yàqul wérd bi loolu yàqul wérd bi waaye li gën mooy nga bañ koo def waaw li gën mooy nga bañ koo def dafa dagan ñu permettre la ko rek boo ko defee dara néew ci mais li gën mooy bañ koo def bu ñetteel ba mooy naan naan ci biir wérd bi dara néew ci tuuti nag waaw mu xafafu sur bi la Seydi El Hadji Malick wax inaara boobaa dangay lekk naan soo paree nga daldi sof sa wérd continuer waaye li gën bañ koo def boroom xam-xamu tarix bi dañuy wax ni nit ki balay commencé wérd na naan ndax bëgguñu mu naan ci biir wérd bi bëgguñu buy doog a pare tamit automatiquement mu naan parce que loolu dafay fay leer gi ne leer gi lay fay ba du yëkki xol bi boroom xam-xamu tarixa bi ñoo wax loolu wa baada alfaraaqi sbir an aklin wa mashrabin ka nisfi suwayatin biduni darura boroom jaamia dafa wax ni wala bokk muhammad fatxan mu ni wa baada alfaraaqi ginnaaw bi nga paree ci wérd bi sbir na nga muñ tuuti an aklin ci lekk waswa masrabin ak naan luy tolloog ka nisfi suway atin luy tolloog genn wàllu waxtu bi duuni daruratin bu fekkente ni doo ci loru kenn xaaru la woon xiifoo lool bu boobaa mu ni loolu nga def ko moo gën bul pare werd rek lekk bul pare werd rek naan dafay arrêté leer gi nga xamante ni moo waroon a yëg ci xol bi kon moo tax bëgguñu ngay lekk ci biir werd bi wala nga ciy naan loolu bëgguñu ko soo ko defee nag dara du la ci fekk su fekkente ni bariwul li nga lekk bariwul li nga naan bariwul ci biir wérd nga ko def dara du la ci fekk amul problème waaye bañ koo def moom moo gën kon boobu mooy bu ñetteel bi bu ñeenteel bi ci yi nga xamante ni dagan na nga def ko ci biir wérd bi mooy di wérdu sóonu wala waaw sóonu mooy nga wéer sa conce wéer sa wet noonu ci sa moo xam photo yi la moo xam leneen la moo xam sajaada la ngir noppalu ci toogaay bu metteeg yooyu surtout mag ñi mu ne loolu dara nekku ci waaye nag bi sarte an laa yej lu ba naw ma bu mu nag bijj ay nelaw bu la fa ay nelaw fekk bu la fa ay nelaw fekkee su nelaw ya woyofee sib nañ ko su nelaw ya xóotee werd ba yàqu na su nelaw ya xóotee werd ba dafay daldi dafay daldi yàqu kon bu mu bu mu xóot kon li gën moo tax lu ne rek dafa am lu gën ak loo xamante ni permettre nañ ko li gën mooy sooy werd nga toog jublu penk comme toogaay julli daldi jàng sa werd soo ko manee soo ko mënul neneen ni nga ko mane nga defee ko noonu mais soo ko manee loolu moo gën su fekkente ni nit ki nag dafay werd sonn na wala aajana sonn wala aajana wéeru aajo woon a wéeru mu def ko waaye bu mu ci bu mu ci ëppal ndax su su ca demee ba nelaw fekk ko fa dafay yàq werdam bu nelaw ya xóotee su nelaw ya woyefee sib nan sib nan ko bu nelaw ya woyefee sib nan loolu bu xóotee moom waxaan nañ ko comme dafay yàq njàppali te bu njàppali yàqu wedd bi yàqu su ca sikki sàkkaa ci ngëmmentoom googu hmm? gëmentoom boobu mu sikki sàkka ja naan ndax nelaw yi xóot na wala nelaw yi xóotul bu boobaa nu muy def waa ji dafay wérdi ci biir wérdi wi mu nelaw ci waaye nelaw yi mu nelaw ci biir wérdi wi mi ngi sikki sàkka ndax nelaw yi dafa xóot wala nelaw yi xóotul ndax bu fekkente ne wóor na ko ne nelaw yi dafa xóot wérdi bi dafay yàqu daf koy baamu abadan bu fekkente ne nelaw yi dafa woyof bu leer na ko ne nelaw yi woyof la xóotul bu boobaa dañ koo sib waaye dara du ko ci fekk léegi nag fii dafay sikki sàkka ndax nelaw yi mu nelaw ci biir wirdu wi nelaw yu xóot la wala nelaw yi mu nelaw ci biir wirdu wi nelaw yu woyof la nu muy def bu boobaa dañu sopp dañu bëgg ci moom mu baamu wirdu wi ixtiyaatan ndax maanaam pour jàpp li gën a wóor pour jàpp ci yaqiin yaa ngi sikki sàkka ndax nelaw yi ma nelaw dafa xóot wala dafa woyof demal rek yeesal sa njàpp baamuwaat sa wérd loolu moo gën loolu moo moo gën su fekkente ne nag nelaw yooyu juralu ko benn sikki sàkka nag waaye nag nelaw na ko ci biir wérd bi bu boobaa bu paree day def téeméeru astaghfirullah jange ko jange ko wérd bi jange ko loolu nga xamante ni moo jiitu ci ak ak ak juum niki noonu kuy sikki sàkka ndax dafa dolli wala dolliwut ci werd bi sikki sàkka na ci biir werd bi ndax dafa dolli wala dolliwut xam nga kon leer na ko ni wàññiwut mais kii sikki sàkka naan ndax dafa wàññ dafa wala wàññiwut bu boobaa nu mi def kooku moom day li muy sikki sàkkanaan da ko wàññi wala wàññu da koy da koy ci indi su paree jàng ko téeméer astaxfirullah ki nga xamante ne nag day sikki sàkk ndax dafa dolli rek wala dolliwut waaye sikki sàkkiwul ci ne ak wàññiku moom kooku moom bu boobaa moom tamit day continuer rek bu wirdam jeexee mu jange ko astaxfirullah mu jange ko téeméeru astaxfirullah daanaka rek dafay dellu comme nga di ko natt ci julli borom borom xam-xamu tariqa bi dañu wax ne lépp lu la jaaxal ci tariqa bi xiyaas ko ci julli xiyaas ko ci julli rek su doon julli la ngay sikki sàkk ndax dangaa yokk wala yokk mais sikkoo ci wàññi moom yokk ngay sikk su boobaa rek jàppal ne dangaa yokk boo pare sujjóot ba'da salaam su fekkente ne da ngay sikki sàkk ndax da ngaa wàññi wala wàññoo maanaam ñett laa julli wala ñaar jàppal ne ñaar nga julli dolli beneen soo paree sujjóot ba'da salaam ndax yépp da nga da ngaa wàññi da ngaa yokk ndax man sàkka fii rukunin bana alal yaqin ku sikki sàkk ci benn ponk da ngay da ngay bina alal yaqin da ngay def la gën a wóor soo paree sujjóot ba'da salaam niki noonu werd bi. soo dee sikki sàkk da ngay def la gën a wóor soo paree jange ko astaghfirullah téeméeri yoon noonu rek la kon yii mooy yi nga xamante ni dañ koo sib ci werd bi dañ koo daganal ci werd bi kon waxtaane nañ fi ñett bu njëkk bi mooy yi ñu sib ci werd bi beneen bi mooy li araam ci biir werd bi beneen bi ci des mooy yi nga xamante ni dafa dagan kiy wérd mën na ko def ñett yooyu moom lañu tënk ci bindub tay bi yi ñu sib wax nañ ni tudd nañ ci juróom mooy lu demee ni ki jàng wérd bi ca kaw di ko di ko wax ca kaw loolu dañ koo sib jàng wérd bi nekk di muuñ muuñ yu bari dañ koo sib di jàng wérd bi di gestu loolu dañ koo sib di jàng werd bi di xalaat ci àdduna loolu dañ koo sib di jàng werd bi di nelaw nelaw yu woyof loolu tamit dañ koo sib yi nga xamante ne nag dafa araam ci werd bi mooy di jàng werd bi di ko yàq di yàq njàngin ma loolu dafa xaraam di jàng werd bi di ko yàq loolu dafa xaraam di jàng werd bi di gaaw lool gaaw goo xamante ni day indi ak yàq tamit dafa xaraam di jàng werd bi di xaqtaay ni ki noonu yi nga xamante ne nag dagan na comme yiñ ci tudd lu demee ni ki di junji sa bopp lu demee ni ki di lekk lekk tuuti lekk gu tuuti gu woyof demee ni ki noonu tamit naan loolu dagan na di jot nit dara wala di ko jël loolu tamit dagan na ci biir wérd bi di wérd tamit di sóonu dara nekku ci yooyu mooy yi nga xamante ni dagan na ku ko def ci biir wérd bi ci bind bii di ñëw incha allahu ñu jàng waxtul wérdi maanaam waxtu wi nga xamante ni fi la wérdi bi war a tàmbale ak waxtu wi nga xamante ni fi la wérdi bi war a jeexe ñu yemale foofu bind bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu